ñi ngi dégg rumeur yi mais ñun fii si biir hôpital lañ mën a wax mooy que ñaari nit ñu ñàkk seen bakkan lañ fi jot a gisagum ñu bi ñu ñëwee démb ñoom ñëpp ñu woon si morgue ba docteur Melo def na seen autopsie ñaari cas yi lañ ñi ngi dégg nag ay rumeur si dëkk bi nag am na troisième cas mais jotul ñu hôpital bu ñu bu ñu déggee rumeur yi pour euh, rassurer wu oo nañ les sapeurs pompiers même ce matin oo nañ leen mais ñoom aussi andiwuñ fi troisième corps dégguñu troisième corps ñi ngeen ko déggee si yeneen médias yi rek ñu noonu lañ ko déggee mais ñun mënuñu xam information boo xam ne si biti la li nekk biir hôpital moom lañ mën a si lañ mën a wax li nekk biir hôpital nag weesuut ñaari corps añu si jële gaañu gaañu démb juróom-ñett lañu woon xaaj bi presque que defuñu fi une heure de temps deux de temps am na ñu génn avant treize heures am na ñu nga xam ne bis dix-huit heures jotee génn nañ ñi fi des tamit yaakaar nañ ne duñ fi yàgg noonu parce que vraiment la toppatoo nañ leen.